Euh, man affaire yi Sadio bii nii laa bëgg a wax euh, ndeysaan cat cat baaxul léegi man euh, comme Bayern moo leen moo ko jënd and everything léegi comme comme Sadio um, right now um, docteur yi la ñuy xaar pour ñu jox ñu seen seen final say of Sadio léegi bu dee ne Bayern exemple ñoo amee insurance am and everything di ko fay. xam nañ ne Sadio maane su demee si coupe du monde bi mu représente Sénégal déjà xam nañ euh, tubaab bi nu ñu mel towards Africans yi you know especially euh, Sadio Mané is a star you know te um, dinañ ko bëgg a bloqué or something and stuff like lii nag li may wax ne sama xalaat la man personally euh, man Awa Gaye you know um, su boobaa lan mooy the solution what else solution bi lan la. right comme uh, man sama idée la man li may wax ni man la concern sama sama sama opinion personal opinion la you know parce que um, man dama tiitan am am so scared am so scared parce que World Cup bii nii is everything pour ñun you know as an African ba pare Sadio Mané nekk a second person si um, uh, Ballon d'Or you know um, loolu tubaab bi mën nañ everything possible just pour coincer um, the African because he's a superstar he is a superstar you get it so like, like lan la ñuy def encase you know I don't know man dama tiit sama xol bi dafa nakari. cause man I love Sajo. I love the Senegalese team. I love the African Bimadon and Episadio made everyone really proud. Come nga, uy leen ma.